yàlla suñu borom maa ngi lay tuubal di la ñaan sab jaam bu tudd Ousmane Sonko nekk leader politique fu Sénégal yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga ko aar yàlla na nga yàlla na nga ko pexe noonu procès bi nga xamante ni moom la yan ay nit ñu bari topp ko si maa ngi lay ñaan yàlla na dimbale ba procès boobu fu mu ko bëgg a yeggale mën faa yegg képp koo xamante ne jog na xamante ne jog topp ay tànkam ngir nu mu ko galgalee wala nu mu ko gàllankooree yàlla na nga neenal ay pexeem. yow suñu borom yaa pexe mboolem ñiy pexe wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin yow suñu borom allahumma naqihi allahumma naqihi min kaydil kaidin wa xiqdil xaaqidin wa udwaani zaalimiin yow suñu borom lay ñaan sa yow maa ngi lay ñaan sa jaam boobu yàlla na ko aar yàlla na ko mosal si lépp loo xamante ni mën naa yàq mébét yi mu am si Sénégal te lépp nekk mébét yu baax yàlla na ko jotale si nguur gi te boo ko si jotalee yàlla na ko kattanal dimbale ko ba fi mu bëgg a yeggal Sénégal yàlla na ko yokk Sénégal jàmm yàlla na ko yokk xéwal yàlla nañ fa yokki teraanga yàlla nañ fa yokki sutura Sénégal yàlla nañ fa dëkk xéewal sa si sa kattan sa mën-mën